Balla Lourd da gàddal Leewtoo bi Concorde mu ngi koy déglu Concorde Balla Lourd arbitre bi àtte na kaay leen arbitre bi àtte na ne kaay leen bëre leen ay sa loolu indiwu fi arbitre bi siflewaat na Concorde Balla Lourd Balla Loul moo ngemboo ngemb lu bulali takkaay bi takkaay yu bari comme ko du cokkaas na daw na ñëw ña ngay xeex jàpp nañ laay laay la laa Balla Loul a ngay dóor comme ko du tël na ko ndeysaan picc na ko laay laay la laa comme ko du daan na ko jël bu rëy comme ko du daan na ko jël bu rëy laa ilaaha illallah Lac de Guiers daan na waay